أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كان الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين نيغي نك سي بيس bis بيس bis ني ñu سانس لي تاي ني نو سانس نك nag خول xol خول xol نك بن benn واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سنو بيتي نمو ملني نان سو بير مل نون لولو ما الاسلام انما المؤمنون اخوه نانو جابانت سي دك buggante sa dëgg ñenu jëfal suñu diine diine nag li su gën a mag mooy julli boo baaxee ñëpp baax boo baaxee texan too baaxul nag perte jullit na naka santaane lislaam lislaam boo si sanka boo si sante du wax man nii lay def nii lay defee déedéet santane si lislaam ngay nek alhamdullilah l'islam santane ku nekke na liggéey si doon loolu mooy islam santane si nit am na ñoo xamante ni dañu toog si garam palaas di kaas dëkk bi amul xaalis dëkk bi demul noon loolu déedéet du loolu mooy jël si kanam réew réew liggéey ak jàng liggéey tiris jàng égal la ñu jëm si kanam ñàkk a liggéey ñàkk a jàng égal sa alhamdulilah waajur yi nañu yee seen doom yi si diine islaam jàng ak liggéey réew mi su loxo xale yi lay mujj ginnaaw loolu jigéen na toppatoo borom këram lislaam santaane ànd ak kersa ak tëggin ànd ak kersa ak tëggin yàlla moo jël góor teg si kaw jigéen yàlla moo jël góor teg ko si kaw jigéen noonu yàlla defee nan ko jàppee noonu bu leen wax pratique pratiquer wala l'islam wala dundu dundu ay yahudiya wala dundu ay nasaani dund si l'islam nit boo dundee si l'islam ñaari tànk yu ñàkk nga dund si lislaam kon benn tànk mu ngi si lislaam beneen tànk bi mu ngi si yahudi loolu baaxul jullit nga jëfee fi jullit lu des mooy maandu cee ne naka seen diggante jullit yi soo fekkee dégg nañu weer bi feeñ na ni ñu su maandu amul wax man fii laa bokk wala fii lay bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn naa sàmmkat bi na ci moom man ni yaa rasulallahi am sartal hilaala layla man day tey ci guddi bi gis naa weer bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ko góom na ci yàlla ma ne ko aha góom na ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko man bilaay yëgal nit yi ëllëg ni ñu woor jullit ni ñu war a ñan bokk na lu si bis bi jokk si mbokk jokk si mbokk baax na lool rawatina bis bi tey rawatina bokk bu dox nga dox si bu mu baaxaat loolu lislaam santaane fa tabaarakallaahu ñun jullit bu ñu wax koor ji jeex na rek julliwaat si musiba yi si fecc si wëy si foo loolu baaxul bisu tey bi bisu solidarité rawatina xale yi nga xamante ni ay ngiram lañ seen waajur dund nañu ñu ne jàppalante ci ñoom ñu ne dimbalante ñu ñu soxla ay yére ak dalle ay dund alhamdulilahi rabbil alamin sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp ñu ngi sant imaam yi ñu ngi sant imaam Jibrilu Diagne ak Papa Malick Soumaré imaam nga xamante ni imaam Mbay Sall moom mooy uufaloon naafil yi ak mboolem imaam yi ñëpp ñu ngi sant ñu ngi sant Adama Dia Bilal ñu ngi sant Adama Dia Bilal bu baax baax no ak yi ñëpp ñu ngi sant président ñu nu sant président si taxawaayam ak mboolem ñu ngi àndal sa liggéey jumaa papa Abdourahmane si. ñoom papa imam pay ñoom papa Habib Gueye papa Lamine Gueye ak mboolam magi jumaa ji ñëpp yal nañ yàlla fay leen yal nañ yàlla barkeel seen njaboot yal nañ yàlla barkeel seen dund bi jaahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam